ndamal daaru laa ilaaha lii laa woo laa ilaaha ilaaha laa ilaaha ilaaha cerno ndamal daaru laa ilaaha lii laa woo laa ilaaha ilaaha laa ilaaha amal daaru laa ilaaha laa woo laa ilaaha ilaaha laa ilaaha illallah laa ilaaha ilaaha jarrayn amal daaru laa ilaaha laa woo laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah anu moom laa ilaha illallah laa ilaha illallah bismillahi rahmaani ñoo ngi jaare mbokku taalibe yëpp ak mbokku julli di leen jaajëfal daadoo ci pàkk bu tedd bi nga xam ni si moo di koso muy pàkk yi nga xam ne si bokk na ci borom daarul muxti gor maam Thierno Ibrahima Faty ndaamal daaru ñu ànd ak jëm Serigne Mahmadan Thiam mu nekk taalibe ci kër gi nekk doom ci kër gi bernde yi ngeen gis nii ñu andi ko chaque ñu koy ànd ak moom mu koy andi ci sëriñam bu tedd bii di sëriñ maam Thierno mu doy loo ko loolu moom ci ndigalam ñu ànd koog mbokku taalibe yëpp buñ ci jiitalee magam sëriñ Adama Thiam xam ñoo bokku ndey ak bay sëriñ Massaer sëriñ Assis Fall ak mbokku taalibe yi nga xam si ñu ngi ci biti waroon a ànd ak ñun jataay bi xéewal yi nag bu ngeen gisee mu yenoo ko daaru andi ko fii ndigal la ci am muy ndigalul sang bi ak dàq ci ngërëmal sang bi te ngërëmal sang bi moom la taali bi di xeeñcu pour bu ëllëgee mu àgg ci yàlla année bi ñu àndee man ak moom ñëw fi muy daaw jéeg ak baay Adama kere bi ñu ko joxe sëriñ ba pare sëriñ bi yëkkati ci kàddu ko dinañ la ñaanal at muñ dugg ak mu man di doon nga gën koo man te boobaak léegi fa mu tegoon tànkam itam teggi ko bu fekkoon da doon def benn tey def na ko ñett ndax dàq ci ngërëmal sëriñ bi mu nekk jàmbaar nag nekkub taalibe te li fi des mooy xencu Sëñ Tuubaa di ko topp ba pare nekkub taalibe nekk ci keppaaram taalibe bi nag lépp lu mën a am ak lu mën a doon Sëñ Tuubaa moo ko jox boo amee jom yi delloo ko Sëñ Tuubaa kooku mi ngi ci fulla te woy na deng te loolu la ko te di ki dénk bu yàlla dogalee weer wi teru di màggalu koso yéene bi mu am ak ku mu am yitte mooy yëgal la bis bi ba pare dox ci comme ni mu ko defee nii indi xewal yi waaye li ñu mën a xamal ñi ñuy topp te ñu seetaan mooy yéene ju ci Mahmadan am rek jàppale ni romb na ko ndax dàq ngërëmal sëriñ bi di maam Thierno maam Thierno nag nekk na jëmm joo xam ne si oyofam ak yëg nit ak bëggu taalibeem foo ko takk passé na ko loolu itam bi ko daan xamee ci la jël léppam booy léppam njabootam dox jëm ci sëriñ bi otoom la dawal ñëw yàpp ci njaboot gépp ba ci tuut tànk yi ànd ak ñoom ñëw ngir jëmmi sëriñ bi loolu nag dañoo amul ku dul borom daarul muxti muy rek Cheikh Amadou Bamba Xaadim Rasul ji nga xam moo sosoon ci moom rek sëriñ bi dem dénk ko yoon wi mu tracé ko yar njaboot gi sàmm leen ba sëriñ bi del su sànku leen loolu yoonu murit moo ko chéré maam Thierno Ibrahima Fati bari diine bari ngor bari xam-xam te munta war ñemam dogal xam la ko war wuute wala kun yooni la bi muy ganee àddina soxee tàkk ca poskoto kenn amul photo an ma mel ni kaso ci lañ sos pàkk bu tedd bi mu nekk ci démb tey doog a ñëw bu yàlla dogalee ñu judd ci gannaaw loolu ba tey mu demee nii ñu nekk yi taalibe nekk ci keppaaram ma dan bokk ci moom ba tax mu jëf-jëf ju ji ak cant mënul passé lii léegi nag la in zakartum la azidannakum ku sant ñu dolli la ñun ci sant la ñu toll waaye dafa guñ dara dan day doog a door rek di leen xamal ni xéwal yi mooy li nga laaj léegi daaru muuxti la bàyyeekoo. daar muxti gi nga xam moo sos pàkk bu tedd bii di koso tingiti mi ngi fii dundu ngel mu ngi ci gannaawam ci pàkk bu tedd bii nga xam ne si moo di koso nekk dëkk boo xam ne histoire la bari ay mag yu fi jaar ay sang yu fi jaar kenn ku ci nekk bi nga fi jógee nekk géej bi ko borom daaru muxti gore yabal fi doomam di jëmm di Serigne Mahmadan nekk jëmm joo xam ne kenn du ko warante ci yoon yi boo demee kër Serigne Abdoulaye fekk fa Serigne Mahmadan ci borom daaru muxti tracé yoon wi ak bëggam lu baax ak bëgg mbokk ak jokk mbokk ak man cee dox arafaa ngi fii ci wet gi mu nekk loo xam si daal mbokk yi yi ñuy topp xamal leen ni ñëw nañ ci pàkk bu tedd tey waaye lépp loo xam si moom a tax a jóg nekk suñuy jéego rek mooy yéene ju baax ak jëf ju rafet te moom solo euh, di ñaanal maam Thierno moom sëriñ maam Mor yàlla yàggal ko fi ci barke boroom Daaru Mursi ci barke maamam sëriñ Mamadan yàlla yàggal ko fi te wëral ko tam yàgg a jiite màggal gi ci barkeb Sëñ Tuubaa Cerno ñun nag am nañ mbégte bu baax ndax ki la dimbali rek mooy ki la wax ni kaay ñu ànd liggéeyal Sëriñ Tuubaa ak borom daaru suñu rakk ji di Mamadan nga xam ni maanaam gëmul ku dul Cerno sëriñ Maam Moor moo nekkoon sëriñam waaye ba fi suñ maam bàyyi ko mu ne dan ci maam Thierno waaye mbër nag ku la jàgg rek ruur ñu ngi siyaare sëriñ sëriñ Mokhtar Mbakke moom mi nga xam ni mooy kilifa jataay bi ñu ngi koy ñaanal balay sobri sëriñ Mbakke maaram ak ba ak sëñ Abdoulaat Mbakke ak mbokk yëpp ñu ngi leen di siyaare ñoom ñëpp ak soxna Faati Mbakke ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla guddal seen fan te wëral leen ñun daal am na mbégte bu baax ndax lii ñuy def nii at mu jot bu ko sëñ Mamadan defee da cay gisu yokk rek ndax sëñ Mamadan kon mën ngaa wax ni jërëjëfa jërëjëfa mam Thierno waaye jërëjëfa sëñ maam Mor Koso mi nga xam ni moo la defar ndax heure bi daaw metti woon na lool caam heure bi daaw bi ngay ñëw fii soo yaram sutante woon na balay sa buri sëriñ Mbàkke maaram borom sees bii ne ko wér rek ngay def maam Cerno ne ko dan mu ne ko Mbàkke mu ne ko dan mu ne ko Mbàkke mu ne ko wér rek ngay def yow da ngaa war a liggéeyal sëriñ Mamor Kosa yow da ngaa war a liggéeyal sëriñ Mamadan Mbàkke yow da ngaa war a liggéeyal borom Daaru Musi kon wér rek ngay def barke borom Daaru Musi mi ngi nii waaw heure bi daaw bu mu fi ñëw metti woon na lool barke borom Daaru Musi maa ngi moom ñoo bokk ndey ak baay waaye dama ni sëñ bi man de ma Mamadane mi jaaxal na ma ndax daa wér di mu ne ma day wér ba lii ma koy liggéeyloo da koy liggéey ba cent ans waaw kon nag Mbàkke ñu ngi koy ñaanal suñ borom dëgëral ko defal ko tawfeex ci barkeb sëriñ Tuubaa waaw di remercier nag waa feex Production ci ànd bi nga xam si moom la ñuy ànd ak Serigne Mame Thierno chaque année saa suñ ñëwee fekk leen fi ci at yu bari di leen ñaanal suñu borom defal leen ndam nañu sopp sit bi te bàyyi ko xel ñun mooy suñu sit ñun waa Daaru ndax yaakaaruñu ku dul cerno te fu ñu wooteel cerno bu ñu ñëwee fekk leen ngeen taxaw yal leen yàlla jàpp leen sàmm taw dafa leen tawfeex en tout ko bàyyi xel